Jene getelu sen sen Rumi Venkat TV jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bi di réew mi 24 TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy du rek annulation bi nga xamante ne rek daal dinañ koy def loi amnesty bi nak réaction bi nga xamante ne rek kii di Ibrahim sek daal dina ko ci jël nak niki ki tey yemoo fukki fan ak juróom ci weeru août ci atum 2024 ginnaaw rek biñ doon amal lii di atelier change bi nga xamante ne rek dañ ciy xeex lépp loo xamante ne rek violence politique la ngir gën a ñoŋal nag état état de droit ak lii di démocratie ci biir réew mi daal dinay insisté ci njëriñ bi nga xamante ne rek état ci jëmi boppam daal euh, jot na rek mu daal di ubbi ab enquête nag ngir xool yëf rek fan la toll xool kenn ku ci nekk rek euh, sa responsabilité naka la kii di Birahim Seck mi nga xamante ne rek moom moo nekk coordonnateur euh, bu Forum Civil nag ak section de transparence internationale daal dinay sàkku rek ci annulation boobu les loi amnistie ñu daal di indi nag ay leeral sénégalais yi kii di Ibrahima Seck nag wax rek préoccupation yi nga xamante ne daal dina koy am ci participation bi nga xamante ne rek nit ñi ñu ngi doon plaider nag ngir ñu annulé boobu les loi mbir mënu mel nañ ko daal di dugal rek ci cadre de juridique ginnaaw rek nee na bu ñu témoignage ba noppi rek naqarlu nag yenn participants yi seen anam bi nga xamante ne rek moom la ñu doxalee ne na nag ci mbir mu nu mel ñu ngi lancé autorité yu yees yi rek ñu daal di jël nag seen yëf yi nag seen yëf yi seen responsabilité bu ko defee rek ñu xool ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo ci yàqule doon ay victime nag ñu daal di leen topp bu ko defee rek ñu def ñu xool naka la ñuy def ba jàppale seen njaboot yi nga xamante ne rek ñu ngi ci désarroi moom ci jëmi boppam rek daal di nay sàkku nag ci gouvernement bi mu daal di ubbi ab enquête bu ko defee rek ñu mën am indépendance euh, bu ko defee mën a déterminer responsabilité yi nga xamante ne rek ñoom ñoo def mbir mi ci système recrutement force de sécurité yi nga xamante ne rek euh, doon nañ ko am nag ci différents événements yi nga xamante ne rek moom moo jot a jàll waaye ñu daal di wax rek euh, ci ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ak ñi nga xamante ne rek dañoo daal di disparaître ñu daal di leen signaler ci réew bi Sénégal lu ñeel nak mbiru kilifa bi Samb ak di Didier Badji ak ñeneen ak ñeneen ki di ibrahim sek nak mom ci jëmi boppam rek ma ngay sakku ci gouvernement bu yes rek mu dal di taxawal ap structure bo xamantene dañ koy jagleel ñi nga xamantene rek ñom ñoy victime yi bu ko defé rek gañu gañu yu metti nga xamantene rek nit ñi ñu koy dund nak jot na rek ñu dal di len taxawu ba nopi rek dal di saafara seen jafé jafé lool mo waral nak dina dal nañu xex lepp lo xamantene rek dafay daal di rek noot doomu aadama bu ko defee rek justice daal di def lii di ab liggéeyam ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañuy àdd rek wax ci njiitum réew mi président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina amal ab tukki bu nemmeeku foofa ca diwaan bu Siin niki 3 jàpp septembre nag mu nekk annonce boo xamante ne daal dina koy def rek ci communiqué bi mu doon amalee conseil ministre niki démb ci àllarba ji mu nekk ab nemmeeku boo xamante ne rek lañ ca daal di jublu moo di nag bokk euh, ci ñeenteeli sommet forum coopération euh, ci weeru lu ñeel boobule agenda diplomatique moom njiitum réew mi nag euh, da dinay xam ne rek ca bopp conseil des ministres que jàpp 4 ci atum ci wàccaayu ñeenteeli sommet bi nga xamante rek la dippee forum coopération sino africain bu nga xamante ne rek ni ki 5 eh, jàpp 6 septembre nag lañ ko fas yéene amal mbir mu nu mi ko daal di fësal rek ci li nga xamante ne moom mooy ab communiqué ba tey ci wàllum xibaar bu ñu ko foofu nag dañuy àddu rek wax ci kàddu yi nga xamante ne rek député bi di Aji Mbergane Kanouté da dina ko yëkkati nag ne na kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag war na màbbal assemblée nationale bi ci délai boo xamante ne rek bu jaar yoon la ki nga xamante ne rek moom mooy député bi di Aji Mbergane Kanouté ma ngay sàkku rek bu fekkee ne rek fas yéene nañu amal nag session assemblée nationale ngir dàkkal règlement intérieur bi nga xamante ne rek daal dinay may ilimaanu jëwrin bu njëkk bi mu daal di am amal nag di déclaration politique générale comme niko constitution bi waxee nak ak règlement intérieur bi eh, ci mbir mo no mel nak ne dal ma ngay sakku rek ñu dal di activer waat bu baax règlement intérieur bi bu ko defee ilimaanu jëwriñ bu njëkk bi nak ñu dal di koy invité comme niko constitution invité ci article 55 cinq mu amal di déclaration politique générale am nee na moom ci jëmee boppam nak eh, gisul lu gëna am solo lool waye nak lata ay fan ñuy mabal assemblée nationale nga xamantene rek eh, ki di ilimaanu bu njëkk bi nak nag faw rek mu daal di def ab déclaration politique générale di kat yi nga xamante ne rek député bi daal dina koy xam xamle jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mun a am yeneen i xibaar